ذلك لله والحمد لله رب العالمين nañu leen di nuyu di leen ziyaara te di leen ndokkeel rawatina seen sukkale fii nga xam ne ñooy saytu tey di ñu koy dugal ci farata ak sunna pays bii ñi nga xam ne ñoo ko fokkoon dañ ko tëraloon ci ñeenti ponk jàng jàngale jaamu yàlla liggéey ñi nga xam ne ñoo sañ ci pays bii ci loolu lañ leen wax te ñooñu ñooy suñu ñooy suñu njiit te ñoom ci ñoom rek la ñu war a roy bàyyi mooy suñu loo xam ne gisul ko woon mu di koy def di koy wax loolu waruñ koo def te waruñ koo waxi waaye lépp loo xam ne lii moom lañ xam ci moom mu doon ko def di koy digle loolu mooy li nga ne moom lañ war a roy ci moom yoon woowu nag wàcc nañ yoon woowu jigéen am na jigéen ñoo xam ne nii dañoo gis ñuy def ay jéewi si kar te loolu bàyyi daf ko lim gaaroom nangu wutoon jigéen jiite ci géewi sikkar wala ñoom ñuy sikkar ñoom ci seen bopp te loolu léegi bëri na dëgg dëgg loolu nekkul woon bu njëkk de nit ki nag wax du woo xamee ne mu ngi rey ci nit daf ko war a roy ci ay waxam roy ko ci ay jëfam lépp loo xam ne ka ngay rey moo ko daan wax nga dëppale waxam ak xam ne moo ko daan def nga dëppale sa jëf ak jëfam su boobaa dañuy dal di nekk ay taalibe yu wóor waaye waxtu woo xamee ne bàyyi yoon woowa réer na yoon mu nekk rek dafa xam ci lu jëm yoon wi bàyyi tàngoon aw ay taalibeem dëgg-dëgg yoon woowu rek ci lañ way sëriñ bi ne leen daanaka li ñu waroon a wax yépp ñi wax wax nañu ko waaye nañu fexe ba nekk ay taalibe yu dëggu nañ fexe ba nekk taalibe yoo xam ne dañuy roy ci seen ci seen sëriñ ci ay jëfam ak ci waxam su boobaa daal topp nañ ci yoonam te loolu te su boobaa danañu jëme fa nga xam ne foofa la nekk ñu nekk fa waaye waxtu woo xamee ne dëpp nañ wala ñu jàdd mbaa ñu toog dootuñ jotati ñooñu mukk kon sëriñ bi ne loolu lañ ko wattandeku bu baax nañ nekk ay taalibe di roy ci suñu sëriñ di li nga xam ne moom la daan def di wax itam la nga xam ne moom la daan wax loolu buñ ko defee rek du ñu réer mukk te danañ delluwaat ci sëriñ bi ne loolu la ko mën a sant taalibe yi pour ñu dëgëral suñu royteef ci baay ngir dëggal suñu taalibe di def la mu daan def tey wax la mu daan waxit loolu bu ñu ko defee yàlla mën nañoo dimbale waaye ñu loolu rek réew mi mbër kon jël nañ beneen yoon bu bokkut yoon wa bàyyi xaw te loolu dafay jur réeroo kon sëriñ bi ne nañ fexe ba xam ne nekk benn ñuy diisoo di dimbalante yi tamit ci lépp loo xam ne moom la yàlla santaane moom la yonent bi santaane sallallahu alayhi wa sallam moom la Cheikh Ahmad Tidiane santaane radiyallahu anhu bàyyi ak loolu bu ko defee rek dañuy dal di nekk benn mbooloo waaye bu ñu soppee rek dal di réer sëriñ bi ne loolu la doon wax ci kàddu yu gàtt ne mu ngi sant taalibe yëpp di leen gërëm bi rafetlu seen taxawaay ci ziyaara bi ak seen ak taalibe bi ñaanu yàlla jàpp ci loxol kenn ku nekk ci ñun jëme ni sa lam bëgg ak la mu gërëm yàlla bi li ñu bët loolu yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci barke Baye Baye اللهم صل على سيدنا محمد